Sénégal nekk ay doomu a liggéey liggéey rek ñu taxaw ñu sàcc ñu fenn def ñu dëgg mais capitaine Mbaye bis bu jot mu taxaw fi di jàpp suñu gars yi amul de jàpp suñu gars yi jàpp na ci bët bi dem jàpp 18 personnes tëj leen jàllale leen te ñu nekkul tey tamit mu jàpp ñeneen jàpp na tey si dugal leen ci biir di leen yóbbu leen tëccul nekkul dara defuñu ñu fenuñu kon am loo xam ne naa ñàkk te fii ñaar te fii quatre arrêt na fi tey bu Dakar Dakar Issa la yor daje na fi ODK sel waa ngeen ñëpp ci biir leen di jooy liñ métti te lépp dañoo metti ñu ñoo ngi ci yoon ndax ndax bëgg liggéey moo ñu fi bàyyi ndax client ñoo ñu bëgg ndax état moo ñu moo ñu moo ñu war a jox ay licence nu ngu ñoo jox licence ci oto yi ne garage ñu bëgg di ñu fekk si fu ñu nekk ñun buñ génnoon cee sax client fekk ñu fi kon ñoom état bu ñu demee état ni ko pour licence mun duñ leen jox licence loolu fan la tegu ci ñu nekk ay doomi Sénégal jënd suñu oto xaalis bu seer pour ngir lan ngir bëgg a liggéey Sénégal amul ay usine yenn usine moo fi nekk mais kon buñ liggéeyul dañuy sàcc wala ñuy def leen kon lan la ñuy def surtout Thiès Thiès da nga fay gis usine mais kon lan lañ war a liggéey liggéey rek lañ war a def. xalaatuñ ko ñun moom ala moom xalaatuñ ko ci. déggoo la ñu kan lañ ci teg. ñun ba ñu ci jàppee waaw une waraat oto yi dem liggéey. suñ tubaab ñun suñ bakkan lañ ci teg ñun fayloo nañ fi cinquante mille xaalis bu ne fay nañ ko ñu fayloo ñu fay ko kon ñun duñ ko ba ci àdduna. police centrale mooy def lii moo ñu gën sonal nag moom police centrale ak premier arrondissement bañ nañ ko fajar gi sax dañ jël ay pièces man ñëw di ci oto naa Dakar ñu ci biir oto duñ jàpp duñ tëj loolu fan la tegu te Guinée yaa ngi ci dëkk bi te ñoom ku ci voyagé ku ci suñu oto yi ngay jël ku ci sa jabar dem suñu oto yi ngay jël doo dem garage ñoom ku ci voyagé ñun ngay luye ba pare oto yi ëppale ñu leen ci waaw kon am loo man naa ñàkk waa jafe-jafe ji ñuy euh, dund metti na ba kenn mënu kaa wax ndax parce que ñun dañoo dem ba jàppe ñun suñu bopp ñun dañoo ne ñun est-ce que ay sénégalais dañuy toog naan ñun est-ce que ay sénégalais lañ ndax parce lu si mel ni Thiès Thiès amul usine amul dara loo xam ne tey mën nañ koy ku si jaayul café dawal jakataa ngay def wala chauffeur métier yooyu ñoo fi ne du usine du dara léegi ñun dañuy ñaan pour ñu jàppale ñu état réew mi la ñuy wax pour ñu jàppale ñu ñun bu doon ay transport wala bu doon ay licence wala génne suñ déggee noon transport direct ndax parce que ñu jaaree si camion bari ñu génnee si kaar bari na bu doon loolu la kon nañ def transport direct ñëpp boobaa dem voilà bu dem liggéey waaye defuñu ko état senegal geesuwul ñun chauffeur yi ñun chauffeur ne dañoo bokk si réew mi àndaa malien ak yee ngeen mën a jàppale sàkkantuma ñun te ñun ay nationalité réew mi la sàkkantuma ñun kenn nationalité fa fii soo fi tegoon ta mbaar su ko nit ku xonk tegoon wala pël fuutal kenn du koy yëkkati waaye ñun suñ ko tegoon ñun nit sénégalais ñun ñu yëkkati ñu ko pour lan ñun suñu réew la ñu war a amee doole nañ ci yoon si si nekk nañ ci yoon xam nga loolu moo tax nekkuñ ci yoon ndax parce que fii amul liggéey Jakarta moo fi ne kon Jakarta nekkul si yoon ndax parce que amul kayit te ñun dañoo am suñuy kayit mu leer naññ dañoo yor carte grise yor assurance yor lépp yor suñuy permis te Jakarta amul benn kayit te pourtant mu ngi transporter nit di ko yóbbu nañ waxante dëgg ñun nag lii lañu am suñu tëjoon midi 45 une heure pile ñu war a oto dem bu ñu taay ñu jàpp ñu ñëpp tëj ñu ñu ragaluñu loolu l'essentiel moom dañuy liggéey dañuy liggéey ku ñuy liggéey nañ ku ñu bëgg a jàppale nañu jàppale si lii nga jàppale wax si lii ñu jàppale ñu continuer suñu liggéey dañuy fay amul prix yan taa koy fay amul prix te loolu c'est pas normal amul prix mais grand bu ñu toogee bu ñuy def kon amuñu lu ñuy def amuñu liggéey amuñu dara tey ku si mel ni man tey métier laa yaakaar métier laa am chauffeur bi laa am tey aw ma leneen lu may def même su ma amaay leneen man tuma kaa liggéey ndax parce que instant habilité naa chauffeur bi léegi nag de tout fano léegi moom amuñu lu ñuy def suñu liggéeyu dañuy dem sàcc te bi suñu sàccee dañuy tëdd 15 jours léegi sax daa mel ni sàcc gën a yomb léegi liggéey da parce que tey li ñu sàcc 15 jours lañ leen di tëj ñun jàpp fii si mbara daa ñu doon liggéey 15 jours lañ leen di tëj ba pare jugé leen kon nañ dem sàcc